Assalamualaikum. Bonjour, bonsoir. Euh, mbokk yi maa ngi leen di baalu àq ci retar bi euh, nagu woon suñu coobare maa ngi leen di jéggalu baax a baax a baax parce que ñu jërëjë jéggalu ngeen euh, di ñaan yàlla li ñu fi dajale lépp nekk njariñ pour askan wi nekk njëriñ euh, pour ñi nga xamante ni it ñoom ñoo taxaw tax ñun ñu toog fi ñëw tey euh, ngeen baal rek euh, balaa maa dugg ci biir waxtaan bi comme dañu joge ci ay élection ma am ku ma doon jàppale benn mbër ah mbër moomu ña ak ñamu mu mu di leen gërëm di leen sant muy waa Benno Bokk Yaakaar ci li nga xamante ni Euh, moom mooy allo euh, euh, allo non lumière boobu la. dañu bëgg mu fay. parce que dañ dañ bëggoon doon leen jox document yi pour nga di ko am loolu moo tax moo ko waraloon parce que document yi nga xam non pas document kii bi par exemple euh, li nga xam moom lañ leen di présenté. lu document yi mu àndal les documents yi nga xamante ne moom la àndal moom lañ bëggoon à chaque fois dinañ ko génne ce n'est pas la le le, document là mais dafa am des documents des plans et tout yoo xam ne yi dañ bëggoon di leen ko wan ngeen xam ne li ñuy wax dafa am mu tegu est-ce que est-ce que dina c'est c'est intéressant ou pas parce que loolu moo war a point point kii bi bon léegi euh, comme euh, ni ma waxee may këram di sant équipe bi ma àndaloon di benn Bokk Yaakaar doon jàppale euh, son excellence le république euh, pour ñu am ndam ci ndakaaru euh, yàlla dogal na man la ñu ma assigné woon alhamdulilah mooy wal ñu fexe def la du réduire écart bi nga xamante ne moom lañu amoon ak waa yeewi ci législative bi passé local yi donc yàlla defal nañ ci ndam man loolu la ñu ma woon Euh, beneen bi may gëxam di sant suma ma mag su ma mbokk lébu muy Pape Mayel Diop moom mi nga xamante ne moo yee li doon nelaw ci man la doon nelaw ci man su ko yeewul woon tey jataay bi du am mouvement bi donc euh, mu ngay tëdd fa mu tëdd di nelaw bien vrai que créé woon nañ ko depuis dans les années deux mille onze mais moo ñëw gëm ma gëm ne waa Benno dañ am yaakaar ci man ci laa jóge pour jàppale leen donc bien vrai di ne bi ma duggee ci yëf yi ba sori na bàyyi ma ak euh, terrain bi mais maa si sant yàlla bu baax ba loolu jëfte quoi moo ñu ñun euh, yokk jom yokk doole ba tax ñu continuer ci suñu mission euh, comme ni leen ko Omar Ngalla waxee ci introduction bi dossier yi nga xamante ne moom la ñu ñëw pour waxtaan ci ak yéen càmbar leen ko ba mu dañu commencé ci Ezebos Ezebos su ngeen ko déggee terrain la ba nga xamante ne bi mu ngi fi ci VDN donc su ngeen ñëwee ci station euh, wala sax ma wax leen du gën a gaaw mooy euh, këru Adama Faye mur boobu longé ci biir foofu mooy lotissement Ezebos lañ ko ku ñëw wax Omar Sy ne woon député jamonoy PDS jiite ko def naa ci liste mouvance présidentielle bi ci liste nationale bi mu ngi ci côté Mbour Omar Sy dafa jëndoon ay terrain fële ci Yoff ay suñu ay mbokku Lebu jaayoon ko ko ko jaayee ay terrain neuf famille ñoo ko jaay neuf famille yooyu ko jaayee seen terrain bien vrai que ne am na lu xëm bu am ci njaay mooma parce que da ngay fekk lu nga xamante ni maam Ousmane Ndoye moom moom jubawul ak maam Ousmane Ndoye mu jël Samba utal ko ay këyit si alalu maam Ousmane Ndoye Samba moom mu dem jaay ko loolu am loolu am na ci donc mbuxum moomu ba nga xamante ne dem na si jamonoy deux mille huit mu bëgg loolu jàll ñoom lu ñu def mooy dañ dem uti ji benn autorisation de lotir autorisation de lotir boobu ñoom bañ koy ut ñu ngi ko si titre foncier bu nga xamante ni bi c'est un titre d'état du quatre-vingt-trois quarante ba ñu ko sa amee comme moom ay téeméer la ko la ñuy jaay mu jël titre lotissement ba autorisation dem teg ko posé ko ci kaw téeméer ce qui est faux et illégal jamono di dox jamono di dox ba Ablaye euh, ba nga xamante ne tey jii Ablaye Wade dem na président Macky nekk fi mu dem continuer foo boobu jaay seen ay terrain ba koy jaay ñu ñu ko utal ay boobu boobu yooyu ñu ko ute ci titre foncier bu nga xamante ne bii six mille mètres carrés di quatre vingt trois quatre vingt trois cinquante huit nga nekkoon de cinq euh, cent euh, cinquante cinq quarante quatre dg état moo moom mais ba nga xamante ne en 2017 état mu ngi koy jox ay terrain bi di ko régulariser mooy la ko famille lëb yooyu jaayoon di neuf famille dañ ci def Omar Sy mandaté par neuf famille lëbu cité les noms des des familles loolu jàll commission en 2017 bi ñu nga xamante ni ñu ngi euh, confirmer parce que commission bu fekkee dafa am deux ans léegi dañ koy reconfirmé waat bu fekkente ne booy litul génn bañ ko reconfirmé waatee commission boobu mais ñu ngi reconfirmé sur le TF cinquante quatre euh, cinquante trois quarante huit NGA qui fait six mille mètres carrés mais la doy waar sa mbir ma Omar ak ñamu àndal lu ñu def dañu jël quatre cent seize parcelles quatre cent seize parcelles écoutez-moi bien pour di ko retager ci titre foncier boobule di def six mille di ci créer ay boobu ba nga xamante ne song nañu leen ñu xam ne lii du dem ñu dem uti ji enquête Comodoun Comodo enquête Comodoun Comodo boobu l'observateur même nañ ko jaarale woon en octobre deux mille vingt un ba nga xamante ni ñun gis na yàlla def rek saña ñu benn jardaan moo ca yem daw wax ñu ñu dem def une opposition si enquête Comodo Comodo boobule bañ ca defee ay opposition ñun ak suñu ay avocat xamatuñ ñoom fi ñe parce que opposition soo ko defee ci enquête Comodo Comodo on doit inviter les partis ku si nekk indi si ay argument mais ñoom ñoo xam ne ils n'ont parce que attaqué woon nañ ko fii en justice moom mu dem contre attaqué ba mu ñu contre attaqué la mu ñëw dafa wax ne moom état mu ngi ko jollee titre foncier quinze deux cent cinq quinze deux cent six et quinze deux cent cinq quinze deux cent six sont loin de de de du site bi nga xamante ne moom moom la doon aménagé bi nga xamante ne loolu am na tey jii tey uti ji na ay pexe ak ña koy jàppale si nguur gi dem di commencé di iman di tabax terrain yoo yàlla te na ci benn droit léegi mu ngay tabax ku tabax moom loo am li nga xam ne mooy extrait plan cadastral ndax sa plan bu ñu la koy jox téy nii lañ ciy def ab téy nii loo moomul nan lañu la ciy defalee autorisation de l'outil famille yi nga xamante ne ñoom dañu jël ay alal def nañu ay plainte même demandé nañu même à l'assemblée une ouverture d'enquête parlementaire demande nañu DSCOS mu azur si mbir mi donc y a des plaintes nga xamante ne ñu ngi en cours mais dafa mel ni ah, ñi nga xamante ne ñoom la ñu jox walla googu mooy ay DSCOS ay urbanisme ak ainsi suite dañ koy jàppale ci mbir moomu pour ñu sàcc alalu jàmbur parce que dañu koo séddoo ba tax na ñun jamono. après amal si approché woon nañu de par l'intermédiaire de ami Cheikh Gaye pour ñu trouver terrain d'entente si mbir moomu la si la ñu élaboré woon le lotissement des mille soixante-quatorze parcelles ñu def ko si ay titres yoo xam ne état du Sénégal moo ko moom ak des TNI donc ñoom la gënoon a seet mooy enquête commodo commodo boobu bañ koy déposé ñu dugalaale ci lotissement boobu dugal ci képp koo xam ne kii ci ay droit da nga fa am ay terrain te état jox ko illégalement à Omar Sy wala boog Omar Sy mu ngay occupé terrain jàmbur illégalement et l'état toog di seetaan loolu mooy premier scandale bi nga xamante ni il fallait ñu wax leen ko ngeen xam ne mu ngi fi lii nag li tax ñu koy def comme dañu liggéey ak son excellence di ko jàppale dañ bëgg lii mu yëg ko parce que ñun dañ jàppale yëg ko léegi nag tey jii conférence dem dañ jàpp ne mooy doon suñu bëccëg conférence si négocier Omar Sy na bàyyi teere jàmbur su ko bàyyiwul ñu réglé ko si masla yoon réglé ko doole dina ko réglé parce que suñu bakkan danañ ko fa teg danañu rey si terrain yooyu suur ñu mbaa ñu rey ko si terrain yooyu suur ko fa c'est ba bëgg mu leer ce n'est pas parce que nous sommes avec le président de la république di ko jàppale que Omar Sy c'est un député du mouvement présidentiel ñun ñu koy bàyyi alali jàmbur mu koy sàcc ak ñu mu àndal di ko séddoo ak ñoom parce que am nañu ay ay euh, ay ñu naan ay kilifa ñu ci am parce que il a une liste loolu ñu bëgg mu leer donc son essence président de la République mal li ñu lay jàppale yépp askan bi suñuy mbokk ñoo ñu la gënal fuuf dañ lay jàppale nag te yàlla donc mbir ñi taxaw si parce que yow yaay garant ak gardien de la constitution donc ay nit doo leen fal teg leen si ay postes de responsabilité ñoom ñuy caxat caxajee alalu réew mi di sa ndax lu rafet loo liggéey son son excellence ñii nga teg ci yenn postes yi ñoo koy yàq di la jaxase ak population yi loolu il faut mu leer yow nag bu fekkente ne sa xol bu rafet may na la doo leen sanctionné doo leen wax nga bàyyi leen si impunité ñun daañu ko faj daañu jàkkaarloo ñoom faj ko parce que on les connaît on les ils sont identifiés et identifiables il faut que ça soit clair beneen dossier bi ñu ne di ubbi mooy dossier ancienne piste ancienne piste moo nekk fële ci Wakaam euh, defe naa yéen ñëpp xam ngeen ko ancienne piste boobu dafa jàll commission en deux mille dix parce que la fa nekk yegg na ci près de cent mais en 2019 ñu jàll si neuf hectares et quelques en commission jox ko les donc Wakam et bi mu jàllee commission mais dafa amoon sous réserve kenn du ñu ko jox les ayants droit tant que mécaniciens yi et def euh, utal ñu leen fu ñu def ba amee famille uti ay pexe uti ay ñi nga xamante ne ñoo leen di doxal muy eh, seen ay mandataire ñuy dox si moom di ci dox ah bi pexe moom lay am ñoom ñu créer benn société bu tudd Onira Group ku mel ni Mamadou Sylla ak ñoom Bamba Yade créer ko ñu dem signer benn convention ak domaine ba ñu signer convention boobu pour leur permettre ñoom ñu mën a fexe ak mécaniciens yi ñu ut fuñ leen amal pour ñu mën fa déplacer ba loolu amee ñoom il leur fallait moom maintenant de l'argent si la ñu ñëw contacter ñu nga xam ne dañu yor mën nañ leen euh, toppatoon mission boobu ils ont signé des conventions avec des partenaires financiers ñooñu ñoo dem uti ji ay millions et des millions maanaam ay milliards et quelques jox ko waa ONIRA ñu dem fële si Sébikotane Diamniadio en cheval benn terrain bu onze mille mètres carrés boo xam ne bi amoon na même lotissement administratif ñu dem dédommager ña nga xamante ne ñooy woon les ayants droit ñoo fa amoon ay euh, attribution bañ leen dédommager ñu collecter terrain bi commencé ko aménager gis ngeen sortie yi def def naa yéen journaliste dem gen fa avec même le ministre de l'urbanisme le ministre de de l'artisanat monsieur Ndiaye et tout donc ba loolu amee l'état sax yi liggéey parce que le ministre de l'artisanat daf ñu assigné pour que à ce que liggéey bi ñu fa bëggoon def ñu yokk euh, kii bi euh, liggéey bi mu gën a mucc ayib donc ba amee ñu wax ne il faut ñu def euh, ñu ñu ñu da ñu dale ko ñu tali ko tali normal defal euh, mécanicien ay toit extra mu nekk benn euh, garage mécanique yu moderne bon mais alal yooyu son excellence dama bëgg nga xam ne am na ku la jege ku ku mel ku mel ni Ousmane Kane il a tout fait ay ressortissants sénégalais yu nekk bitim réew jël seen ay alal def ko ci projet boobu le muy ay milliards ku mel ni am na suñu benn mbokk boo xam ne bi ja c'est un médecin qui bi euh, évolue ci Côte d'Ivoire bëgg a ñibbi Sénégal bu mu yëgee projet bi def na si des centaines et des centaines de millions pour que projet ancienne piste mën a mucc ayib ndax dafa bëgg a ñëw aussi moom installé fii fii benn hôpital waaw mais li jaaxal gaay mbir mi moo di ne dañu dem ba jamono ji ñu gis ne bu BRT bi tax na président signé na fa décret bu sept hectares pour jox ko waa BRT ñu gis ne dañ waxoon ne kenn du fa defagul dara kenn du jëwagul benn papier tant que mécanicien demuñu ñuy gis des notifications à gauche à droite des notifications assainies waaw léegi ñun ñi nga xamante ne état moo signé ak ONRA ay accord ne ko fexeel nu fi mécanicien jotee ONRA signé ak les mécaniciens mécaniciens yi ñoom pare nañu jox ñu utal leen fu ñu dem war leen a jox méca pour quatre cent vingt sept mécaniciens chaque mécanicien deux cent mille francs accompagné la pour sa déplacement xaalis boobu yéen ñu uti ko des sénégalais bon pain dëkk fii si dëkk bi liggéey fi seen alal ñaxa ko njub lañu ko sàccuñu ko def ko ci projet bi tey projet boobu ñu koy traîner ba ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo war di si joxe kayit yi tey lu ñuy def di si génn ay boo di si faje ñoom seen ay soxla soxlay bopp ba day dégg euh, le bijoutier Lam jaay nañ ko fa xaw man autant de parcelles da ngay dégg ay ni parce que li may wax dañ ko am dans des documents di jël ay terrain yow président de la république jox la poste de directeur yow nga war a defar dëkk bi ngay def lan xale yu ndaw seen ambition mooy lan nañu nañu am ay alal alal mais alal bi boo koy am am koo ci ngor am ko ci tey bakken am ko ci loolu liggéey mais alal ju askan bépp bokk sa poste biñ la jox tax ngay profité di remplir tes poches di dund dund pacha yow ak sa moo tax li leen di dal bi leen di dal musiba bi bu dalul seen kaw dana dal seen doom seen ay doom gis nga ku si bàyyiwul suufu la bu yii nga siy def naka suñu noonu wala suufu séréer yii wala suufu euh, suñu mbokk pël yii billaahi di ngeen jóg si ak toroxte di ngeen jóg ay doom di torox parce que mag ñi dañu toogoo woon seen alal ma leen koy wax nag je vous parle en connaissance de ku ci bëgg a dund dund gu teey sa njaboot dund gu teey bàyyi leen alalu lëbul yii bàyyi leen alalu séréer yii bàyyi leen alalu pël yii seeni alal la ñoo ko moom lu ngeen ciy def jubboo leen ak ñoom seen xol bu si seddee incha allahu rabbi lu ngeen ci def dina barkeel inondation yu bari yi ngeen gis si si si tey bay si yooyu doo koy indi defoon nañ ni bu ñu Senghor defee li mu ñu def ab Diouf def ñu li mu ñu def Ablaye Wade ñëw ndoggali ko di jël suñu ay alal di ko maye de gauche à droite président Macky ñun dañ yaakaar ci yow pour loolu na dekk ñii nga teg si poste de responsable ñu yor affaire suuf yii nekkaluñu fi lu dul seen bopp nekkaluñu fi lu dul seen bopp ils se sont enrichis sur le dos des Sénégalais et des jeunes citoyens parce que ay poste de yoo leen jox ci suuf si donc loolu dafa war a dakk ba loolu dinaa ci wax ci ci dossier ku ñuy wax Balla Seck même ñëw na si ñun ñu des centaines de millions mu ne président wala ministre moo koy yebal pour lan pour régulariser le dossier day ñëw même ne la directeur dafa soxla dama dafa soxla benn don de d'ambulance mu war a def nangam nangam ñu ngi gëm ko yëkki ay chèques li ma leen wax parce que on a donné des chèques et à ces gens là yoo xam ne dañu dañu wax dañu je xam nañ ne dañu jege euh, présidence mais président loolu dañ bëgg a yóbbu nga yëg ko Balla Seck on lui a donné des centaines et des centaines de millions moi et Ousmane Kane dama bëgg président nga yëg loolu ak ku ñu wax Kandji on bëgg loolu na leer son son excellence ñooñu ñuy ñëw di leen bëggoo bu ñu waxee président mooy présidence moo ñu yónni moo boole ak yéen wala ministre moo moo ñu ak yéen di ñuy génne xaalis di leen jox dossier baa ngi nii dara avancé tey jii actuellement bu dul yow dossier bi du sotti son excellence mais xamal ne sa njaboot def nañ si ay milliards et des milliards wax naa la tur Ousmane Kane wax naa la tur Dia def nañ ko ci pour dossier ancienne piste boobu suñu alal lañ jëndee fële nga xam ne mooy jam joo jam ñaa du projet état alal boobu ñu ñoo ko jënd suñu xaalis pour yóbbu mécanicien yi président xamal loolu bu ma jógee foofu damay ñëw si dossier bu nga xamante ni boobu tamit nébuleuse gënu ko nébuleuse muy dossier cent cent cinquante quatre hectares bu nekk fële si Diamniadio yéen ñi miin Diamniadio booy dem croisement Diamniadio si gendarmerie bi nekkoon à votre droite sa ginnaaw moo fa joxoon suñu ndijaay waa Rufisque la njabootam ñëw contactam ñu joxoon leen fa cent cinquante quatre hectares kilifa boo xam ne bii moom moo jëkk a taxaw fii ci Sénégal wax ci benn président luñ ko kenn dul wax kenn du ko fàtte naa loolu dama leen wax suuf na damay bañ aussi gars yi ma donc kooku bi ñu ko joxee cent cinquante hectares mu jàll la commission même année waaw ñu ne nañ immatriculer terrain bi loolu la commission bi recommandé l'immatriculation du terrain et l'attribution bi à euh, aux ayants droit dafa may wax ak yéen tey su fekkente ne génnewuloon nañ leen projet bi da ngay gis ne tey dagg nañ si une partie jox soko si dagg une parti jox HLM am na sax koo xam ne kii fii ONG la yor manque lam ñu da bëgg dee daggal nañ ko si un hectare moom si ak turi doomam un hectare si sa la sant ak ONG la yor fii te ñoo fi gën a màgg laame te wax ne dañuy jàppale kii dakal nañ ko ci gaynde bi ma leen di wax nii ak ñeneen ak ñeneen waa léegi les ayants droit toog ne pa te buñ demee kaas wax gendarmerie ñëw ne leen kii dugal si kaso bi président wax si parce que décret présidentiel ay agents des impôts di ko jël di si def lu leen neex ah loolu ce n'est pas du respect war nañ ko seetaan décret kenn abrogé ko te abrogé wu ko di dox ba tey ay agent des impôts di ko jël di ci def ay boob di ci def ay attribution ça c'est du jamais vu si Sénégal dong day laa ko mës a gis donc président wax si donc yow sa sa baat la ñu jël ne du fi taxaw baatu agent des impôts mooy taxaw donc loolu président yaa ko war a fajal sa bopp ndax l'état c'est continuité yéena ko bu ma jógee si boobu damay dem na si aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff yàlla dafa def en deux mille dix neuf ñu def benn projet d'aménagement administratif départ bu mu woon vingt hectares si ñu xam dossier bi après ñu albati ko mu nekkaat vingt huit hectares bi mu nekkee vingt hectares nekkoon cinq cent cinquante sept parcelles vous vous souvenez bien amoon na fi coow ak yoof parce que boobu dañ ko defoon ci turu commune de yoof mu am coow waa yoof di ko xëccoo heureusement bi intelligence amee ak ay wax ñu dindi ko ci turam parce que boobu même ñi nga xamante ne ñooy woon des responsables de la mairie ils se partager le terrain ça je vous le dis parce que si ñu doon dox dossier boobu ci laa bokk biñ ko changé def ko vingt mille hectares lañ ko dindi si turu commune de Yoff waaw ok mais foofu su ngeen xoolee engrais premier numérotation bi mu ngi commencé H lettre H chiffre bi door a tegu yàlla def ñun moment bi nga xam ne ñu ngi dox du ay solution entre états et les populations ñu defoon fa benn projet de dix huit hectares parce que boobu dem nañu gisante ak waa aéroport ñu jox ñu benn documentation documentation boobu wane ne à part de l'axe de la ak dëkkuwaay yi cent cinquante la war a doon mais wax ni l'OACI c'est des pages et des pages des milliers de pages l'OACI loolu la loolu loolu moo ne seen ay charge donc fii nga xam ne bépp jamonoy tubaab yu kon gars yi dañu doon sàcc Donc, des aéroports internationaux, les distances de sécurité de l'axe de la piste, c'est 150 mètres. ñoom biñ ci waxtaanee les différentes ports yi ci doon waxtaan ñu ne koon léegi comme aéroport bi jege na fii nañ ko def deux cent dix mètres benn bàyyi benn marche donc bi ma gisee ne gars yi def nañ seen projet ba taxaw ma ne ñii ku leen bàyyi ak li des dañ koy rattaché naa leen ci jëkk ma def fa benn ñu def fa benn projet ak équipe yi ñu àndal ne comme Yoff hôpital bi fu mu ne dafay taa chaque année parce que am na ñoo dañu tabax ci kaw yoonu ndox bi am nay canal yoo xam ne dañ ci tabax loolu après nañ ci ñëw bu ñëwee ci jamono ci dañ ci tabax ñooñu dañ leen war a teg ba ci ginnaaw même hôpital bi dafa am ñu tabax ci pompe ki boobu fi ndox bi war a jaar dafa ay cantine loolu ñëpp dañ leen war a raser donc bi amee bon ñun ñu xalaat ne donc ay rab kii hôpital bi fu ne nañ ko délocaliser yóbbu ko côté hangar bi mu gën a mag def def hôpital mu ci ayib mairie bi kazalika foofa noonu ñu def ko benn poumon vert ca biir waxtaan bañ doon waxtaan bari ñoon ñu fa nekk y benn contrôle des impôts bu tudda Bengeloun jamono ji ci élection euh, locale yële moom mu nekk euh, defe naa euh, kii wu euh, fële Kaolack moom moo ñëw ne ma mais grand yow fi ay équipement rek nga fi def comme dañu ut ay solution pour les populations mais duggoo ci ay parcelles si lañ ci créé quatre cent euh, et quelques parcelles yooyu muy dix huit hectares ñu du introduire dossier bi dossier bi nekk en cours ñu ñoom domaine dafa rapport yóbbu pour mu jàll commission waa mais ñun lu ñu jaaxal mooy jamono jii ñu gis xam nga lu ñu gis ñun bande bañ leen joxoon ñu defar ko puus nañ miir ba et tout ok mooy bu soo demee am na benn collectif bu un hectare bu Tahirou Sarr collecturé à part de là bas jëm si miir bi miir bu bees bi bande boobu yëpp ñu ñoo def projet bi et jox leen ko mais xam nga lu ci jaaxle band bi actuellement ñoom dañu jël xam nga hangar CDH wax naa leen ko si début bi mais ñoom Y moom moo nekk BOA mais dañuy jël Y bu BOA di leen jële foofu di leen ñëw recaser fii pour pour faire quoi libérer de parcelles au lotissement des BOA li ma leen di wax yëpp c'est des documents xaw ma lu tax génnewuñu ko fii mais dañ ko defoon parce que lii li tax ma li waral même ma ma ma tardé si kii parce que loolu lañ leen pare parce que fu ñu toll ñu jox leen document yi comprendre donc voilà projet bi mu ngi nii boo xoolee gis nga Y Y gis mooy euh, moo génn si kiwu tongoor mu ngeen demee tongoor te mu fa génn directeur de même côté bi la dëkkee donc Y yéen yëpp c'est des Y waaw Y ben waaw lu muy def si engrais ah yéen journaliste dama leen koy laaj doom am ngeen liggéey il faut ngeen def ay investigation gars yi wax leen lotissement Bewa lu muy def ànd ak lu tax continué ñoo kat donc ñañu joxoon ay parcelles Bewa leen wax li tax ñu di leen indi fii parce que dafa am lu am si lotissement Bewa donc ñañ joxoon ay parcelles Bewa te xamuñu nu ñuy demee ñoom la ñu jël maintenant bi indi fii ci lotissement boo xam bi ñun ñoo leen pour régler ay solution ay problèmes yoo xam ne dafa am entre les populations ak l'État ak aussi affaire inondation yi ma leen wax ci Philippe Maguilène Senghor ba ci am na suma suñu benn kilifa kilifa diine la dama koy ñaan parce que xam naa ne état jox na la foofu fukki parcelle bi ñuy defaraat plan bu mujj bi yow sama kilifa googu di kilifa diini kii ci dëkk bi yow yaa tax ba projet boobu yeex ndax defar nañ ko yow si jëmma tax ñu defaraat ko ndax dañ la waroon a jox des parcelles de deux cent mètres carrés bi nga xamante ne projet ba génn na ñu jox la ay projet ay parcelles de cent cinquante mètres carrés le autorités ci kaw tapé sur la table pour ñu delloo la ay say parcelle de deux cent mètres carrés ñu daw defaraat projet boobu donc sama kilifa boobule di kilifa diine su fekkente ne parcelle yii du lu la lu dul luñ la may ah may lañ la de suñu alal suñu nga de mais tamit du tere suma bopp ma la gënal xamal ne suñu alal lañ jël may la ko yow sama kilifa boobule di kilifa diine ko mag a mag di xalifa fii si dëkk bi dama koy wax mu leer bés nag bu ngeen a jéem a dugg ci man détail yëpp xam nga damay wax di cof su booba lépp nag dinaa génn tur ak tur sant ak sant moo wax leen ko nag on se connaît très bien donc président waxal sa gars yi suñu lotissement quatre cent et quelques parcelles nañ ñu ko jox ñun ñoo ko moom ñoo ko introduire ñoo leen ko jox document à l'appui les rapports sont là tout bu ma jógee si boobu dañuy dem si dossier 4407 donc ñaari dossiers yi bi ma génn ak bi ma dugg daanaka benn la dossier 4407 bii ngeen gis nii mu ngi juddoo si dossier 5019 bii en 2003 2004 boobu ne ya na ko yàlla yam yëpp a suma benn mag Amadou Mène génn na àdduna moo amoon ay kóol ay wóllare fële ci euh, aéroport ñu ànd di ci dox bañ cay dox si lañu ay rapport defal ay kayit bu nga xamante ne yi kayit daf ñu jox ñun droit ci lépp loo xam ne li mooy titre foncier cinq mille dix neuf dañ ne cinq mille dix neuf yéena ko moom lu ngeen si bëgg a def leen famille Dambène et famille yi ko ñu dem Birima Mangara ki fii inspecteur des domaines nekk IGE mujj nekk ministre du budget bi mu nekkee euh, impôt moom moo defar rapport ba rapport ba mu koy def dafa wax ne cinq mille dix neuf yëpp la ñu jox donc fi cinq mille dix neuf nekk ñu ñoo ko moom ba biñ defee premier projet état jël la moitié c'est doogu ak ñun am na benn waaye bu nekkoon PDS si affaire problème mu euh, suñu papa nekk yàlla nekk euh, sëy suñu kële door ah noonu la tudd foofu la dëkk si parcelles yi ma di wax donc ba loolu amee ñu attaqué deuxième phase en deux mille sept deux mille huit créé beneen lotissement si même terrain bi cette fois-ci avec Taïbu Ndiaye Taïbu ñëw def lu ko neex si terrain yi. jox si ñoom Farba Senghor et tout def lu ko neex ñu attaqué ko en justice diaboliser ko le ministre de l' bu fi nekkoon muy Abdoulaye à l' époque y avait deux Abdoulaye euh, euh, ministre de euh, du budget ministre finance c' était deux Abdoulaye Diop pour ñi ko xam ministre Abdoulaye Diop boobu bi Vincent Max Mity jëlee fonction remplacé Ibrahima Wade en moom moo ne ko lettre circulaire bi ma gis muy wër lébu yi def ko xamal kan la nga régler problème bi ba ñu demee juróom ñu waxtaan mu ne ministre bi moo ne qu'on règle problème parce que là on l'a fait du tort mu ne ñu mais ñun suñu problème mooy fan la ñuy jëlee assiette foncier ma ne ko su ngeen amee assiette foncier di ngeen fay famille mu ne waaw si la ñu génn dem gisi boobu am na suñu benn cousin muy Abdou Naar Mbengue mu boobu mu ngi ADS seen euh, bureau des affaires euh, kii nu génie civil moom moo ma mettre en rapport ak Fallou Ndiaye doomu Mbaye Ndiaye y avait ñoom Mara syndicaliste ñoom Diop extra ñu ne piste trois vingt et un bi dañ ko délocaliser plus donc à part l'axe su ngeen dawee six cent centimètres wàcc leen ngeen samp seen borne de là-bas ba ngeen jëm euh, route route route kii bi route Ngor bi lu fa kii bu fekkente ne am ngeen ci autorisation mën ngeen aménager mu desoon lan ñu war a def benn mur parce que comme affaire aménagement milieu yooyu ADS moo ko yor Fallou Ndiaye doomu Mbaye Ndiaye la boobu moom seen comité finance nekkoon war ñu waxante mu war a lijjanti loolu si papam photo am mu ngi fii bu ko gars a génn ak photo yi même ñu doon liggéey rapport ñoo xam ni projet si leen ci boppam donc ñoom gëmuñu woon ne Mathiago Mbessane dinañu defar l' autorisation kii euh, avis favorable boobu la bi avis favorable bi génnee autorisé ñu loolu recommandé ñu nag comme quoi il faut ñu gisee ak euh, ADS pour que ADS defal ñu kii bi ADS defal ñu autorisation pour ñu tabax miir bi léegi ci kaw loolu doomam boobu la Fallou Ndiaye ne il faut ay millions génn des centaines de millions comme nag ñun suñu biir dara dara du lëgum ci des fois dafay daw ñu ne loolu duñ ko fi def tey nii xeex bi nag fa la jolle ba dossier bi atterrir ji fi nga xamante ne mooy palais présidentiel ñu ciy dox di ci wax di ci dox di wax di ci dox ci wax ba yàlla def. président Macky Sall ñëw fi yaa moo dossier Tobago ah am ñu ko seetlu ne ko fooy am na terrain mu ne ñu ne kon waa Tobago nañ leen recasé foofu waaye tamit foofu tamit bi def daf ci dem leen ngeen laaj waa Tobago Tobago bu fekkee ñi tabaxoon la cinquante pour cent la ñi def lu tabax vingt trois donc soixante treize victimes moo am Tobago mais c'est pas trois cent il faut que ça soit clair ñoom ñoo si dugal yéen si dugal ñoom dem naa ministère des finances di ko fa wax ñu ne ma hey yow lijjanti sa problème nuñ def ba yokk ko bu ko lijjanti billahi wallahi wa tallahi sama bàmmeel laa taxaw eh yow lijjantil sa problème da nga am ay famille yooyu défendre seen cause lijjanti ñu jox leen mais niñ def ba yóbbu ko trois cent trente six sa yoon na wu si barke salatul dem naa ministère des finances kilifa ma toog ak moom mu wax ma loolu ma ne ko ah bi ma génnee gars ma wax ni dëgg lu si sa yoon maman mais dinaa leen ko wax pour ngeen xam donc loolu le ba fi may wax ak yow Tobago trois cent trente victime Tobago jotaguñ ko de la ñu jotoo jot ñuy génn saa bu ñu quatre-vingt quelques parcelles donc en trois cent et quelques yi buñ koy wax président li jëm ci ma woor yaa jiite dëkk bi amatuma interlocuteur waa interlocuteur ba nga amoon man man xaw ma nax man de même bokk naa si ñu bind ba ñuy kii ŋaañ ko daal si kawam xaw na nag ndax loolu tax na ñu wàccee ko mais amatuñu interlocuteur amatuñu amatuñu premier ministre donc lépp li ñuy wax na son excellence ah ñu yow la ñuy jàppale ñu donc yow la ñu mën a waxal. te comme aussi sa gars yi xam nañ ne bu ma jàkkaarloo yow dëkk bi day feeñ am na dañ may baare la route mais faalewu ma leen faalewu ma leen amoon solo bu paree ci jàppale la sénégalais yi ñoo ma ñor bon loolu xam ko mais gis nga ci ci dossier boobu cinq mille dix-neuf bi leneen lu gën a garaaw am na ñoo xam ne ñi tabax nañ ba pare defe ne ñoo liñ tabax baax na ñu ngi ay boo yoo xam ne boo yi ñu ngi si mentionné TF cinq mille dix neuf c'est une bu bande mur ba Cheikh Thiam kuy ànd ak Ousmane Sonko ñoom dama doon nekk ak ñoom di liggéey parce que moi j'ai fait plus de trente ans aux ñoo daan ànd def aménagement yi on na leer bopp ah ba ñuy liggéey na bu njëkk bi ma leen doon wax sànq ak suñu jàppante tey bloc de de xeer yi ñu doon génne di ko di ko di ko di da ko doon def exprès jël bu ñëwee ba ci miiru miiru piste bi ba ma ko miir bi daanu parce que xam na ne dinañ ne ko liggéeyaatul miir bi ba mu koy liggéey yaa benn jaxate bu nekkoon kii moo ADS mu waxante ak ñoom ba ñuy pousse mi ba ñu pousse à vingt mètres yooyu mu ngi dugg sur la quarante quatre zéro sept et je défie quiconque bu yéen ñëpp bu ngeen maa la defal te xam nga leen public reportage xam nga ngeen koy wax ñu dem ba si le terrain moom wan leen yëpp bañ ko poussé ñu créé fay une centaine de parcelles te pourtant ñoom kan maa leen dugal foofu de maa leen doon fay ñuy liggéey man maa leen doon fay nekk Italie di yónnee xaalis ñu leen di fay ñuy liggéeyal ñu ñëw def loolu pousse ko gars yi tey boog ñamu àndal créé leen fa ay parcelles mais ñu ngi si mentionné ñu jël terrain ñu jël aussi euh, rapport ak de boo xam ne bi si turu Dame Mbengue la nekk et consort créé si titre euh, boo yooyu jox ko ñooñu ñooñu tey ils sont dans l'illégalité essan yooyu tey jii bu ma neexoon léegi ma ñu attaqué leen kenn amu si kayit bu baax parce que sen parcelles yi mu ngi si cinq mille si quarante quatre zéro sept au lieu de cinq mille dix neuf parce que yi dafa baax ngeen xam ko parce que dañ nekk dëkk bi di bëgg a rey ak nit ñi ak ak tantamaare di wax rek duñu tus surtout ba booyu domaine yi di créer seen ay syndicat créé ñu ko lu dul parce que jànga na ñëw fi mu nekk nii les seen mag ñi daan def ñu ñu yaakaaroon ne ñoom bu ñu ñëwee dañuy def lu gën dañuy nekk ay modèle mais li seen mag ñi daan def bu leen président santé defal leen ma lotissement nangam de dix hectares ñoom dinañ fexe ak seen pexe ak seen ay technicien ba def lotissement bu ëpp ni hectare douze treize quatorze quinze seddoo ko seen biir loolu lañ fiy def ñoom président xamal loolu buñ defee ay parcelle de deux cent mètres carrés bu pare bu ñu paree li ma lay wax mu document yaa ngi fi kenn du ko ci wedd yow dañ lay jox ne la si papier deux cent mètres carrés moo ci ne mais bu la cadastre di génneel parcelle bi génneel la cent cinquante ana cinquante mètres carrés yi léegi calculer cinquante mètres mille parcelles ñaata la dañ koy jël nag daggaatewaat ko encore seddoo ko loolu lañ fi nekk président na nga ko xam kenn baaxu si kenn jubu si ñoom ñëpp nag kullukum kullukum baaxuñ baaxuñu dossier boobu dama leen di wax Mor Ngom Maysa Maya Góor Diouf Mohamad Mamadou Sall Alioune Badara Ly Ousmane maam Ousmane Doy man mii ak Ibrahima Siis dajale nañu fa fële ci permanence APR ñu doon ci waxtaan pour élucider problème bii bii pour ñu élucider ko dossier bii 2012 laa ko introduire dañ koy introduire boobu Abdoulaye Daouda Diallo moo nekkoon ministre du budget ma ma ki ma introduire boobu tey moo fi nekkaat tey mais li jaaxle si dossier bi tey waa léegi dossier bi Farba euh, kii ma naan Farba euh, l'autre là Fallou Gueye lu ko ci dugal boo seexee keneen et que Fallou Gueye war nañ seen ay mbiram parce que gis nga zone de captage bi ngeen di dégg nii ay problème am bi c'est lui koo xam ne kii yow da jaay ay pièces détachées bu de surpoids aujourd'hui tu président sama mag Alaaji Babacar Nangi yóbbante na ma si yow mu ne Pape Diagne ma nga leen boole ay parcelles ci suñu am na ci ñoo xam na ñi nee nañu ma woo ne leen doon leen jox ay cinq cent mille francs ana parcelle yañ ko jox des milliards waaye yéen nan ngeen mun a xamee Mamour Diallo mu ne day régler un problème Pape Diagne téye ma ci loxo man ak ati le maire de Ngor sortant ak délégation ñu dem ba bureau Mamour Diallo war a régler ce problème Pape Diagne daf may téye ci loxo duggal man si biir buur Mamour Diallo waaw kii mooy maam Ousmane moom la ay famem doon def lii nangam nangam nangam kooku ne ma andil ma ay preuve le lendemain ko yóbbee après mu dugal kii at loolu mooy régler problème waaw léegi président gis nga dossier bii mooy dossier ba nga xamante ne bay la wan bay la wan andi woon na ko ci say loxo nga doon prafe mu ne la déet bul prafe parce que booba xamul man maay kan nga ne ko entre Birima Mangara ministre budget ak ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba ministre des finances tan nga bëgg ma joxal la ko dossier mu traité ko mu yónnee ma message ma ne ko moi j'ai choisi Birima Mangara mais tey maa ngi kaa réccu maa ngi kaa réccu xam nga lu tax Birima président daf ñu boole ak moom ñu traité dossier bi lu ñu ma def ñu defa dossier pare mu jël benn parcelle def def ci bàyyi may ko bay la woon bi ma doon lijjanti doon terrain bi bay la naka mais man foo ma laa di jox may xanaa di nga jox ñi nga xamante ñoom moom terrain bi mu ne ko noonu après sama yaay dem fa ak samay waa kër boobu mën naa ngi Paris mu ne leen semaine prochaine ba tey ba ma ñibbisee dugg bureau maax bay la woon def di pré conférence ba pare def nii wallahi al kaamilu alxuraan la jëli teg si taabal ji di ma waatal wallahi azim xol bu xolu yërmaane jàpp ma ma dindi turam ci lettre bi lettre boobu moom laa bind président wax ko li ñu def si dossier bii xaw ma nag sama làmmañu am barke waaye ñoom ña ma sa tuddee ñëpp ba ñu remanié président kii boobu gouvernement boobu ñoom ñëpp lañ dàq ñoom ñëpp la ñu dàq ci liti donc président dossier bi ñuy wax nii biñ ñaan Tobago dañ leen fay joxoon nangam nangam mooy da moor ngoom ak may sama ko doon dox mooy da day la woon andi woon si yow donc famille Mbengue et Ndoye di Mariam Mbengue Khary Ndoye famille euh, nu mu tudd encore euh, kii Mbengue Dame Mbengue la ne ñu leen jox seen ay alal joxe nga ay instruction ba mu nga comprendre président kilifa ak ni nga toll sa kilifteef ngay jox ay subordonné ay ay surgo ay directive ay euh, lu ñu war a def duñ ko def bi ñu kalli kallee te bi si bon xam nga lu ñuy def yow da ngay da ngay xamante ak moom ñëw gis ma ne ma léegi naa la doxal dossier bi à condition tel pourcentage yow di nga am mën am yow gis leen ñoom ñooy war a gérer dossier man ni leen président boole man ñu moom sama dossier pour gis leen c'était quoi un bagnard Pourquoi vous ne Ce sont des agents de, de, de l'État. C'est le euh, bouc de foro bu bokk ñu leen di gis li ñuy def teguñu ko fenn président président ñii mérité ñu di amaat poste de ñii mérité ñu nga di leen dugalal sa gouvernement mérité ñu sax nekk euh, vraiment je sais pas quoi chargé de mission mérité ñu ko président billahi ñii nekk si foncier bi ñëpp si yëngu bopp bopp da Abdoulaye Wade jusqu'à maintenant képp ku la si jege da AAG nag a wax am na si nag peut ñett ñoo xam ne ñi xamul ma leen dara mais su peut-être su ma waxee ñoom ñoom yoon ni am naa ñett ñoo xam ne yàlla xam na ne xamul ma ne dara mais bu dul ñett ñooñu ñii ci képp président maa la wax ne baaxuñu sant ñu yàlla lépp lu xew si foncier bi sàcc geeg yëpp ñoom la détournement bi yëpp ñoom la salfaañe gi yëpp ñoom la. président loolu dañ lay ñaan nga jóg si parce que ñi ñu ngi tenir sa yàq sa image loolu liggéey ñu yàq ko di la jaxase population bi ñun ne comme dañu ànd ak du ñu nangu tey jii bu ñuy comptabiliser yow loo baax loo fi def dañ ciy bokk lu bon loo fi def dañ ciy ndax 2011 ba ñu ngi ànd ak yow donc du ñu nangu ay ni jóge fële ay xale yu daw di ko barke démb mbëgg fi tekki nekk ay milliardaire tey ci lan su le dos des Sénégalais des jeunes citoyens duñ ko nangu tey duñ ko loolu dama bëgg dama bëgg mu leer loolu moo ñu yóbbuwaat tey encore président président dañu jëkk génne benn projet benn plan plan boobu ñu ko defee muy woon quatre vingt dix sept hectares pour pour Tobago euh, ak CDC euh, mais euh, li ñu ma constaté tey ba yàlla di jox ma document boobu président ba nga defee loolu dafa am ñu bind ñu ne fii nga fii de dara mënu fi am parce que dafa am ay antenne président nga def décret pour wàññi projet bi toxal ko defaraat ko ñu ëllëg projet bi waaw mais président xam nga lan moo lan moo jaaxle teewaay parce que président andi nañ la dossier bi moi je sais que le dossier bu bees bii ma lay wax ni les huit cent quelques parcelles andi nañ la ko ba joxe nga si ay directive pour que ñu ñu traité dossier bi waaye président est ce que xam nga dossier bi ngay traité mooy la xam nga président ñii ñu la def. ñii dañ la dañ lay yeb dañ lay fonk président yow dossier boo xam ne bi yow dañ koy jot ay instruction pour ñu defar ko ñoom ñu ne la mënul ne parce que lii ak lii moo fa ne ñoom waa aéroport tey jii ñoom ñu lañ la waxoon ne dañ ko so ñoom ay antenne moo fa ne ñoom ñu def seen demande naa la président autorisé ñu lii ñu xam ne ñu xam ne yow tey dañ si war a joxe décret léegi am ñu lay jàppale ñoo xam ne yaa leen teg ci poste yu ñu ne xam nga pour ñu def lan jël léegi lotissement BOA pour détacher si les huit cent et quelques parcelles loolu les trente hectares ci loolu la gaa yi nekk nii tey président xam nga loolu de kon président ñii dañ la jàppee ak naxas a kandang ñii président wegguñu la ndax bu ñu la weggoon yow doo jafe décret si benn dossier te ñoom ñoo la ko def loo ñaari ak ñetti ak après ñu naan la président terrain bañ la waxoon ne baaxul jox ñu ko dañ ko soxla pour dëkk bi léegi président 37 hectare yooyu di 800 et quelques parcelles waxuma bu leen si may de ñoom a aéroport waa aéroport yi par exemple intersyndical yooyu merci woon dara mais dama la boo yéegee jomp may leen si li si des jël ko ko jox ko population Ngor Wakaam ak population Dakar ak ñi ci war a am loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg président te ña def loolu da nga leen ay sàcc lañ c'est des voleurs c'est des voleurs c'est des voyous c'est des criminels parce que alalu askan bi boo ko yow di ko di ko lekk di jox say doom ñii yaataa yumbe ngay def lu di si doxaane di def lu la neex donc tu es un criminel c'est des criminels ces gens-là président comme ma la waxoon si départ bi rek wallahi ajim yow yaa tere ma def li ma bëgg def parce que salaatul fatiha parce que ñi duñu dara ci man lenn moo mën a am nga woote président lii ñu réglé ko daar daar di ñu on met fin à yi fi nekkee muy EGEBOS muy euh, biir aéroport bi tout mbéy gay AMG projet yooyu yëpp président da nga war a yónnee ñu arrêté travaux yi nga def ay enquête parce que ay voyu ay sàcc ñoo ci nekk ñoom ñëpp c'est des voyu c'est des c'est des parce que ils ont tué Massayer Seye ils l'ont tué tiital ko ne boo fi génnee IG euh, ñii dinañ la jàpp parce que parce que parce que dossier Massayer Seye boobu xam naa ne mooy moo moo mujjee mais dama ko dama ko dugal si moo tax may kii moo mujjee après may mujjee bële deuxième série si boobu nan la demee Mbaye Gueye EMG je le dis et je le nomme haut et fort Mbaye Gueye EMG très bien Mbaye Gueye boobule man mi maa ko boole ak Massaye Sèye par l' intermédiaire de euh, Ousseynou Thiam bu yoof nekkoon ci maire euh, au temps de Abdoulaye Diouf Sarr boobu moom c'était lui le mandataire Mbaye Gueye boobu il était comme ça avec Kaïbou Ndiaye donc lépp mënoon na bi yónni biñ ko mënee terrain bi mu dem wan ko Taïbu Taïbu ne ko mën nga ko jënd dinaa li ko jëndi parce que foofu il faut ngeen comprendre ne ci domaine maritime bi la bokk donc il faut un décret présidentiel pour ñu déclasser ko mu dugg ci domaine yam public domaine normal domaine foncier normal bon bi amee moom au début il voulait acheter cinq mille euh, parce que le terrain fait onze mille ma ñu dem euh, kër Pape Ismaïla Ka notaire war a def protocole bi et tout diggante man ak moom ñu jàppante Max Mbaye Gueye ONG mu ne ma ñëwati dans ses bureaux parce que man nit ba ma jaayee ma jaay la fu la parce que du ma nekk ak yow nga may jaay alal defe na yaa may not ñu jàppante ba mu metti mu dem ma dem mu continuer ak Pa Massayer ak Ousseynou Diom amaana ñoom aussi loolu arrangé woon na leen ba ñu demee ba ca biir ma gisee ak Pa Massayer ne kii kat yaa un ma laaj ko mu ne ma ah Mbaye Gueye ak Ousseynou Diom li ñu ma def ma ne ko li ñu la def ne ah fay nañ ma suma alal ba mu jeex koo war a jox près de un milliard te fi may wax ak yow Mbaye Dièye ko bind reconnaissance de dette de cent soixante dix huit millions écrit noir sur blanc signé je reconnais devoir à monsieur Massayer Seye cent soixante dix millions le document est avec nous mais mbaa ñu ci doon yëkkat leen di jooy rakkam la rakku Massayer Seye ils m'ont donné les documents quand j'ai regardé les documents Massayer bi ma koy fekk si këram da doon da ci koo xam ne ki civilisation ni ko koo xam ne jaafee sa culture scolaire bi yaa ngi ko defee en France ne ñëw ne ko tubaab bu ñuul mais boobu jaxase nañ xel mi tiital ko ne ko terrain bi boo fa tegee sa tànk ah euh, brigade recherche wala dig euh, dañ lay jàpp mu defe ne loolu dëgg la mu toog ma dem ne ko mais liñ la wax du dëgg yow tey nag y a un ministériel un arrêté ministériel de 94 Abdou Diouf jox la ko kenn abrogé ko kan moo la wax ne moom moo fi dara anti yow ki ki lay ki lay napp si sa alal yaa yaa koy yaa koy yaa ko sëñ mais ñoom lu béy day ONG du mu def sëñ les deux dimensions là ka CADES dama leen def sommation interprétative ak urbanisme ñu génneel ma le fond du dossier wax ma li fa ñu ne ma ba fii ñun li fi am mbéy day ONG deux mille quelques mètres carrés la ko Massaër Sèye jaay muy ñaari parcelle A et waaw Massaër Mbaye ñëw di tabax lu mu jëf la fekk autorisation de lecture bu Massaër Sèye am mu dem yokk ci def na ay manège am ba ñu yokk ci turam donc autorisation lañ ci bind yemul ci loolu dem di tabax plus de cinq mille mètres carrés jël jël mbedd yi tram ni ñu euh, morcellement bi ni ñu ko defoon dafa jël mbedd daaw léegi nag ci la ko waa cadastre arrangé ak urbanisme comme bëgg na domaine marché bi kenn du jàll foofu changer position terrain bi géographiquement ba terrain bi nekk léegi Pien daaloo nekk nekk ci géej bi am na mbedd moo xam ne ñu ngi doon jóge foofu ci kaw pour wàcc boobu am na benn euh, actuellement fii gars yi di tabax les tours là au am na ci te te mu amoon clinique am na mbedd bu foofu ci ci géej léegi mbedd boobu dafa waroon waa ci continuer léegi mbedd bi kon mbéy kay fàtte na ko fàtte ñu président Massiré Sène plan projet bi mu defoon xam ne moo nekk au niveau du def lu ko neex def ay agent corrompre ñi mooy corrompre tey soo la jeex wala policier ne la jeex si alalu jo yow si alal joom moom ay waay euh, beneen bi ku ñaan sëñ Xaasimu di seet si maam borom Tuuba masa yor sëy jox ko cinq cent mètres carrés Ablaye Wade jàppale ko bu mu fi nekkee ba mu am ci baay muy dem di jaay di jaay terrain bi ñu naan Jean Jean di benn jarbaatu Pierre a bu jaabina di ko jaay terrain bi jaayaale ko lu ma moomu jaay ko cinq cent mètres carrés am def na ko dama koy régulariser waaw si bon dëkk la ñu nekk te ñoom ils comptent sur les domaines et autres les l'État pour que ñu régulariser leen ñoom béy gi ñoom ñoom loolu loolu et que dossier ñi ma leen di wax ni c' est en justice au niveau de la justice def nañ ay plainte avec les avocats plainte ñu boo xam ne bi mu ngi mu ngi assemblée nationale mais parce que fii daal boo amee alal soo amee doole soo nangamee kenn du la wax dara may ñaan président lii na ci wax parce que gis na ñii nii suñ ko bàyyee fa muy jëm mooy nit ñi génnante ay jaasi ak i fital parce que tamit bu fekkente ne mënuñu ko euh, régler alam yaam justice mënu ko régler nit ñi parce que bu ñu bàyyi doomu aadama ëppalewu la dara di ñëw di jël sa alal di ko lekk si tey ba kanam duñ ko nangul kenn donc président lii soo ko jotee dañu lay ñaan lillahi wa rasulu te li ma lay wax fii la nit du ko dindi président liñ taxaw ci parce que ñun aussi si njaboot gi la ñu bokk si njaboot gi baneen bi damay ñaan suñu papa suñu wasila suñu sëriñ sëriñ Tuuba sëriñ Muntaxa comme Mbaye Gueye si tarixa bi la bokk sëriñ Tuuba lay moom la moom la wax ne moom la gëm moom la yaakaar sëriñ Xaasum Mbàkke si njaboot gi la bokk sëriñ Tuuba day daawul lekk lu mu moomul sëriñ Tuuba daawul lekk lu reyul sëriñ Tuuba daawul xëccoo bu la fekk alalam sax soo ko xëccoo moom bu bàyyi ko ak waa léegi nan la tey jamono ju dox du dox du dox ba njaboot ak sëñ Tuuba ak taalibe sëñ Tuuba di fekk alalu jàmbur naan dañ koy siif di ko jaay doole ba tiital nit kooku ba nit kooku tiit ba daanu euh, am am problème euh, bassin mu damm fracturé ba dee lii la ñu def mbay day moo tax mbir mi man tamit ma teg si sama bakkan comme moom maa ka boole woon ak ma sëyër sëy ba ils ont traumatisé Marseillais Seye ba Marseillais Seye tey bàyyi leen fi ak man Mbaye Gueye alalu Marseillais Seye boo ko fayul sëñ Xaasu Mbacke alalu Marseillais Seye boo ko bàyyiwul ni ngeen ko traumatisé ba mu uyu ci boromam dinaa leen traumatisé yéen ba ngeen uyu ci seen borom tabalu leen si man fukki nii ko wax or Mali moom lañ ko si man di ngeen rek leen mbir mi alalu Marseillais Seye di ngeen ko bàyyi si ñëwoon si Mali naan dama bëgg mu si le ministre bi may wax toujours waaye nan ngeen di fekke nan ngeen di fekke nan ngeen di fekke benn accès décision justice wax ne justice dafa wax ne dafa am famille boo xam ne bi dañ war a fay treize milliards e poussière treize milliards et poussière boobu ñu war leen ko fay depuis deux mille dix ba ba à nos waa léegi lan moo tax ministère des finances ak ñi mu nekk ñu ne du fay et que leen affaire bi mooy mooy mooy paragraphe bi ah treize milliards sept sept sept cent quarante neuf millions ah huit cent euh, trois cent soixante dix mu am clause boo xam ne bi état euh, justice dafa wax ne bu ñu toogee délai bu ñu toog fay ñu c'est des pénalités yooyu tey bi ñu calculer bi ñu ko calculer nekk na des fi may wax ak yéen fi ñun tey boobu bi ñu doon calculer treize milliards yi amaana daf de suñ ko doon calculer dem na ba ay vingt milliards léegi ñi nga xam ne ñoo décidé pour que xaalis bi ñu war ko ñoom bu doon sago ñu jaay ko famille bi xam nga par exemple euh, kii man nga ko jaay man man nga xam nga euh, sax xam nga bor boru état hmm? xam nga boru état man nga ko jaay comprendre nga boru boru état man nga ko jaay ah moom la wax session gi léegi mais loolu noonu gars yi dañ bëgg x x x x x saar x saar wala famille wala famille x euh, wala famille x euh, comment dire euh, tebe wala famille x actuellement bari nañ fi ñu jaay leen ko à dix milliards wala neuf milliards ñu am ñoom marge trois milliards wala quatre mais marge bi ci boobu noonu moo leen intéressé de gars yi gis nga lii bu ma ko see bu ñu ko seetaanee gis nga problème mu quatre-vingt-quatorze milliards yi bii moo koy raw may jox leen sax information après naa leen ko jox quatre-vingt-quatorze milliards bi actuellement décision justice am na si ba terrain bi delloo nañ ko seeni borom ba actuellement soo ko xoolee seeni borom seen tur moo fa ne ñaar ñan lekkoon alalu état ñoom dinañ ko gox loolu information la bu ma leen di jox léegi bii nag bu ñu seetaanee mooy raw boobu. xam nga bii lan moo ci nekk parce que tribunal bi muy def pénalité yi deful montant donc tey jii ki nga dossier bi saa yu ko neexee na mën na wax ne pénalité yi trente milliards léegi nag gis nga ñii bëgg jënd dossier bi loolu lañ ci wut que pénalité yooyu moo leen amal solo parce que loolu ñoom moom la ñuy dem négocier ak les décideurs buñ ko négocier dem seddoo ko seen biir noonu la ñuy dunde noonu la ñuy dunde ci kaw askan bi noonu la ñuy dunde ci honnête citoyen et contribuable sénégalais lii mbokk yi ngeen xam ni lii donc combat bi man de sama bakkan laa si teg mais dama bëgg combat bi boo waxuma leen ngeen ngeen def seen bakkan de poussé leen ma rek yéen yéen médias yi dossier dama génne neuf dossier de y a des centaines si te jéeni may mën naa leen ci wax mën naa leen wax ci yeneen ak yeneen donc les pôles urbains yi fi nekk mën nañ ci wax mën nañ ci wax nébuleuse bi dafa bëri donc président lañ bëgg mu xam ne ñii mu jiital ñii mu wóolu duñu bagage duñu ma matuñu palta donc ces problèmes la il faut qu'on les règle il faut qu'on les règle il faut président nga jël si ay matukaay tey ci projet yi may wax ni yëpp nga dem kam na ma la waxe woon en deux mille dix huit maa ngi dem Paris ma yónnee la courrier mu jaar fa mu war a jaar nga jot ko ma wax la la xew ca nga jël oliko ànd seeg bu Ablaye Dione circulé wàccee militaire yi foofu dama bëgg bi yoon nga defaat nañu arrêté ces travaux là xool ñu ñu jox terrain yi ñañ ñoo ko joxe ñu jubal affaire yi mu jaar yoon parce que tamit ay ñaari ni ñetti ni benn groupe bu restreint bi dund si kaw askan bi si àllu askan bi dafay jeex président boo ko jeexalul si nii juste jeexaloo ko si naa ñun ñii man ma jiite ko dina dinaa ko jeexal si naka te xam nañ ma xam nañ ma bu baax parce que jaar naa fa ak tey mu yaay jaar naa fa ak ñi ak ñeneen ak ñeneen pexe mu ne ji jëm nañ ko si man sànq ma jéem nañ ko si man xoxatal jéem nañ ko si man mais macha allah maa ngi nii dama leen di wax ne gis seen xoxatal yooyu ak seen pexe yi nga xam da ngeen di am seen ay nit au niveau de ay nit dégradé de ce fait que bu ngeen songee dara kooku ñëw opposé wu ngeen euh, xoxatal ko dama bëgg yooyu na dakk on se connaît fii yi fi ak si fi seddu si suuf yi xam nañ ko fii ay gradé wala ay homme de justice yoo xam ne yi il se trouve avec des centaines de milliards Sénégal dong la am Sénégal la am baneen bi nag président dama ne nga taxawu lébu yi jàpp lébu yi lébu yi jàppale askanu Dakar ah sa kër gi nga nekk muy palais bi yaa ngi dëkk ak sama maam de sama maam nga dëkkal la tax xasan moom moo fa nekk ba tey la tax Ablaye Wade moo fa nekk ba tey ak i pexeem la tax Abdou Diouf moo fa nekk ba tey ah téye jeune ñu yaakaar si yow dama dama déglu woon audio Ablaye ne jeune bi jeune bi nga am ba tax tey nga retraité sa pays bi te moom bàyyi la fi un franc moom Abdou Diouf bàyyi la ko fi Abdou Abdou Diouf sama bàyyi la ko fi yow nga man a réussir téye dëkk bi nii daf ko jaaxal te man gëm naa ne dëkk bi bés boo koy bàyyi ki ñëw di nga ko bàyyi ay dara loolu Ablaye Wade bàyyiwul donc am nañ ci yow yaakaar man xam naa li ngay liggéey par rapport donc président dama bëgg sama maam jàngal dëkkal toppatoo ko parce que sama chéri la de xam nga maam maam bu jigéen sëtam mooy chérim sama maam bi dëkkal sama chéri la saraxu soo ya nga war a génne paani soo yi génn ko ñeenti nag ya nga war a rey rey ko bien vrai gars yi ñu sarax si di la laaj ay boo leen joxe gi wax la nag beneen lii foog ma wax la ko président gis nga usine de dessalement bi dañ koy dañ koy def yob yoon nee nga pour sarax bu war a génne ña nga jox pour ñu def da quinze mille francs la ñu génne jënd sim soow dama la koy wax de génne nga ay millions pour ñu def sarax dama lay wax li may bañ nag mooy usine de dessalement boobu seen première gas wala taw da ngeen koy def rek sama sama calaweer yi fekk leen fi calaweer yi ñoom fa wax ñoom de di ngeen comme di di gas calaweer yi fekk leen ma daa xale bi gars yi sarax ba donc président génneel saraxu Ndakaar am am ay paani soow la ñu jaxase ko def yi far yi farul ñu saraxe ko ak ñeenti nag yi ko président dëkk bi naat dëkk bi am jàmm yaa compris saawaan baawaan coow bi jeex kenn du ko wax jërëjëf aywa les questions. président donc la première question. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. man la Papa Daouda Diop de la Médina de Médina TV. Euh, déglu nañu sa waxtaan. déglu nañu sa waxtaan euh, monsieur le président du Sénégal sa kanam. wante yàlla ñu may ñu nekk xam ne yi jàngat. parce que li ma la dama la bëgg poser benn question boo mooy ndax un système de communication et une méthodologie de communication lu war wax loolu parce que wax dañ koy waxee ci waxukaay la et c'est très important et je pense que yow mi la bi ma dégg li nga waxee ni tant que au niveau de la communauté Lébu Ouakam est que le cadre maanaam la cosmogonie bi nga xam ne mooy li waral xeex bi nga koy mën a nga defoon ko au niveau de Taïf ñëpp ñëw fekk la fa ànd ak say mbokk je pense que combat yi foofu dañoo amoon sens c' est une contribution maintenant la question ndax waxtu bi nii nga toll nii di jàppale président alors qu'on parle effectivement du foncier ndax effectivement du yokk ci xaar bi kanam loolu laa mën a wasalaam. maanaam ci jamono ji ñu parle de problème d'aliénation foncière un peu partout na ak anti maanaam ak sotti bi nga def bi ndax maanaam du toll ci xar bi kaar tellement aujourd'hui il y a tellement de problèmes fonciers ci au niveau du Sénégal ma tontu wala ñu ngi ci. juste une précision. deuxième question. Euh, juste une précision, elle n'est pas le représentant de TAC. Voilà. Donc, bon, comment que je préciser parce que... Euh, parce que... Et lui, il va répondre. salaamaaleykum. ay salaam. ñu ngi ziar bu baax di la wàccee si wàllu waay. c'est-à-dire c'est Ousmane Niang journaliste à la Time Africa TV. ma question bu lay laaj mooy dañuy wax ci wolof li nga xam ne dafa dañ ne dañ ne ça se lave en famille. tey daanaka toog nga fi wax yëpp bari na. est-ce que tey laata ngay def sa conférence de presse surtout woon yow nga xam ne euh, nga dem euh, dajeeg nga xamante mooy ndeyu liggéey bi euh, njiitu réew bi Macky Sall comme ça après a toog waxtaan des solutions au lieu que tey li ñu wax ni est-ce que tuut a de l'État le président de la République du Sénégal. troisième. kan mooy dem la troisième question. su amul ñu yem si ñaari question c'est bon xam euh, nga yow la mais moi je voudrais que la première question que ce monsieur intervienne pour clarifier encore sa question c'est fondamental No, vogliamo fare la parte come compro le case. Poi lo compro, lo faccio a poco. Allora l'avancelle. Non, mais c'est bon. Avancelle, le présenté, je pose des questions. man ma

C'est une de la tête. Euh, malheureusement, je pense que vous n'êtes pas expliqué en français, donc la question, il faut quand même peut-être répondre en français. La première, c'est quest vous a motivé jusqu'à ce que peut-être vous organisez cette conférence de presse pour expliquer euh, parce que euh, après vos vous aviez euh, presque toutes les étapes Mais bon, à votre grande surprise, euh, vous aviez vu euh, peut-être que les euh, impôts de rêve, les gens des impôts de rêve, ont usé le subterfuge pour chipper vos terres. Deuxièmement, vous nous avez également parlé de Maïgé et de la famille euh, peut-être serrée ou Est-ce que vous pouvez revenir en détail donc sur euh, cette question-là et euh, quel est quel est également la part de vérité euh, de de la famille en tout cas Mbaye Gueye MG a pu quand même mettre la main sur cette surface. merci beaucoup ñu ngi ñaan réponse yi ñi nekk ci ginnaaw saal bi s'il vous plaît ñi nekk ci ginnaaw saal bi ñu ngi ñëw interview asalaamaaleykum bon pour me répondre si question suñu mbokk si jéen euh, donc mbirum tànk andiwuma fi nga baal ma rek ma ci mën a wax parce que andiwuma fi aussi yàlla dafa def aussi bokkuma sa ño ñu koy ñi nga xamante ne ñooy guur tànk di doxal tànk di rien parce que nag dinaa leen jàppale ci li nga xamante ne mooy sama domaine si wàllu technique di jàppale parce que ñoom ba ñu jógee ma yëg amuñu matière bu ñu présenter l'état pour mën a régler seen problème maa dem fekk leen jox leen tous ces projets yi ngay dégg may ko wax may leen projets yi mu ngi fi pour que ñu mën ko jébbal les autorités étatiques pour ñu trouver des solutions loolu laa mën a doon def defal naa leen ko donc nag du man maay dem di leen fekk parce que man depuis nee naa trente ans maa ngi si si ci xeex bi ma ne du xeex mais conscientiser le euh, les autorités et les populations moom leen di baale rek benn bon bi nga xamante ne da nga wax ne sortie bi est-ce du yokk ci xar bi karaw xanaa loolu nga wax évidemment posé nañ le pour et am na ay kilifa yu bag parce que aussi man du ma jóg wax ak ay kilifa xam nga bi ma toogee am na ay note sax si am na sujet boo xam ne ma koy euh, euh, kii am na note bu ma fekk ma wax noppi taxawal sax fi nga toll parce que autorité yi woote nañ ne dinañ régler problème bi du bi moom laa jox ma dox problème nag bu njëkk a nit def na man ne autorité yi ñu ne fii nga taxaw fii bul continuer dinañ régler problème bi donc kon yaakaar naa ne xam da soo déggee sama njëlbeen wax dama wax ne son excellence xam nga ki lay jàppale depuis 2011 ba nga doonagul dara ba nëgër ni doo bu ba tey di la yàqal te président de la république monsieur Macky moo su jox un franc moo su ma jox xaala waraa kasiran sama alal laay jël di ko jàppale parce que dama gis li mu liggéey ma dugg si population yi man sama activité politique bi xam nga kañ la commencé fës bi nga xam ne ñu ngi def parrainage si laa dugg si population yi gis jàngat ne son excellence ñaari noonu la am noonu boppam mooy ñi mu ñi xam ne moom moo leen jox ay ngambu tànk moo leen dooleel jox leen ci ñu waroon a nekk des relais au au des populations jàppale leen ñooñu ñoo koy xeex ñooñu ñëpp réeroon beneen noonu bi nag mooy kii nga xamante ne bokkul président am beneen mandat loolu c'est les populations c'est les citoyens qui vont di décider donc moo tax nit moo koy def. nit nee na ma est-ce que dina ko couteau en double tranchant mooy comme question bi nga laaj te kilifa gu ma def élément yi ma bëgg comme ma leen ko présenté yoon ne ko ko ma waxtaan si ak sama benn xarit mu ne boo tontu rek ànd na ci te kilifa la parce que li may def nii pour man damay jàppale président xam nga kañ laa doon bañ a nekk jàppale pour man ma génn ànd ak population Ngor Wakam Yoff ne damay xeex damay taalipoone damay nangam mais dama woote. ne président yi dama jàpp ne te loolu laa jàpp jusqu'à preuve du contraire te ne bëri na yoo xam ne yëgu ko certes waa tànk bañ fa demee mu di leen jox les quatre hectares yooyu ñu ko si gërëm di ko sant wax na leen ne yëg na ne xam na ne am na ay terrain yoo xam ne mu ngi koy joxe ay lotissement gars yi di si def na ko suñu noonu ba teg na ci loxo arrêté ko ba yëf yi gën a leer seen euh, ancienne piste bi euh, trésorier bi man kilifa bu ci bu nekk urbanisme nee na ma président mu stable la son problème mooy ndax bu ñu ko joxee dinañ respecté niveau yi nga xamante ne dafa war a nekk ay R parce que du fépp moo mën ay étage yu kii donc mais dama xam ne ma lay koy jàppale man pour man te mu ngi war a monter gouvernement bu bees ak la dafa am ñoo xam ne ñii amaluñu ko benn njariñ amaluñu askan wi njariñ te bu mu fekkoonte ne man man woo na ma mu tudd ak tur ñooñu bu doon suma sogo du ñu figérer ci fenn bi ñu sax ay chargé de mission parce que ñu ko parce que yàq sàcc lañ nekk si dëkk bi waaw loolu dama koy jàppale na defe naa loolu ba tey parce que am na ku ne ndax lu jë jëkkoon ma dem si président gis nga dossier yi ngeen di gis fii su ngeen bëggee yëpp mën naa leen copier yónnee leen parce que man lu may def dafay clarté clarté clarté la yàlla amul ministre bu ko jotu amul directeur de cabinet président muy Augustin muy Mamoussale bu ko jotul yëpp mu ngi ci ñoom xam nañ ko damay si échangé ak ñoom mais dañ ne bu buur soxorul dag yaa soxor yéena ko wax boo soxorul daj ya ñoo soxor léegi tey man dinaa bind président par exemple parce que man la may def dama koy ñeme ma ne jéem moo def nangam avec des preuves à l'appui waa léegi par exemple buy duggee si bureau boo xam ne bii kooku moo war a yóbbu courrier bi moo koy njëkk a gis président gis ko ne ah jéem sama xarit la nekk fi dossier ba donc loolu day am moo tax des fois population dama leen di comprendre journal dama leen di comprendre mais des fois man président ma comprendre ko parce que xam naa li muy daj parce que ñi ko war a jàppale jàppale ñu ko man loolu moom moo tax ma génn wax pour que li may wax jërëjëf ak jaaraama yéen ñi koy def en direct parce que naa ne dina ko jot te yàlla na ko jot parce que dina ko jariñ parce que xam na ne ŋaañu ma su ma doon ŋaañu kon ñu def li suñu gaar sa kanam avec le président Mame Ousmane Ndoye et le président Macky Sall c'est le différence ki kañ dañ koy jàppale donc dérive yi nga xamante ne ñi nga moom moo leen tabb ñu ngi def loolu la ñu bëgg a génne mu yég ko xam ko donc loolu rek la am nga